العالمين سبيلا صلى وسلم عليك أبدا بلال وسلم ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام تجيب لي توبا يا دار السلام صلى